loolu moo ñuy permettre peut-être ñu dugg ci seen programme candidat bi nga xam ne yéen ngi jongante jàkk war a jàkkaarloo ak un maire sortant bi nga xam ne peut-être ñenn ci population yi salué nañu réalisation yi mu am ak bilan bi nga xam ne jot na ko am au niveau de Yeumbeul Sud yéen ngeen ñëw bëgg bëgg ko fa jëlee indi leen malgré peut-être que ak réalisation yi nga xam ne ñenn ñi nga xam ne ñu ngi dëkk yë Yeumbeul Sud ñu ngi koy bàkkoo ne def na fi pratiquement ñu lu maire yi ne ñoo fa ñu fa joti jaar ñëpp defuñu ko yow ngeen indi seen benn programme pour concurrence ko local élection locale normalement 2014 la 2019. Mhm. ñu yokk ci ñaari at. Mhm. tey réalisation yooyu muy bàkkoo bu bu ñaari at at yooyu amul woon na du ko def est-ce que tu parce que ñu ngi wax l'hôpital euh, benn centre case de santé. case de santé mhm. boobu yàgg na de. ah non non non non boobu yàggut. Cheikh Siradi Fall. waaw poste boobu yàggut yàgg yàggaay boo xamante ne tey peut-être yàggut. te case de santé bi yóbbal mérite plus que ça. parce que poste am nañ poste de santé poste même mun na munuma du ma wax poste de santé parce que case de santé la. beneen bi mooy yóbbal mérite plus que ça. beneen bi mooy lu ñuy wax centre commercial. centre commercial la ñuy wax. centre commercial déjà il faut que ñu xam ne si privé. yëmbal waaye amuñ ci benn njëriñ amul leen benn njëriñ. ah loolu non damay wax. parce que xam lu tax amul benn recette buy dugg ci mairie bi xam ma ma ñëw parce que benn commune bu mel ni Yeumbeul Sud. Nous avons un marché qui est marché court. marché, il y, a 7, il y a 7 ans ou plus de 8 ans, le marché est presque abandonné. Il y a une inondation. Il y a une inondation, mais il y mhm. a abandonné la place. Quel est le mhm. marché Le marché, il y a une Pour que déjà, nous avons une place sur le marché, nous avons une place. Nous avons retrouvé cette place parce qu'il y a des Effectivement. Nous avons déjà des dômes. Il y a des dômes. Il y a des dômes. Il y a municipalité di am ay recettes yoo xamante day am day am importance ba recettes yooyu dina mun a recapitaliser wu tey ci ci ci ci ci nekkin waa Yeumbeul Sud mhm. donc ça veut dire que tey investissement boobu waroon nañ ko def tey un marché moderne de Yeumbeul Sud man loolu mooy sama xalaat beneen bi mooy centre commercial tey fu ñu ko tabax espace public la espace public lañ jël jox ko privé pour mu tabax ko déjà fu ñu ko tabax amoon na amoon nañ problème embouteillage au niveau de yemul Sud chambre de commerce boo xam yemul Sud xam ne boo wàccee pont bi bés bu centre commercial bi ubbee xam ngeen ne kenn dootul jàll oto yi dootuñ jàll embouteillage énorme lay doon ci pont terre bi ba ba yëmbal mbedd face bi embouteillage lay doon ça c'est premier inconvénient beneen inconvénient amoon nañ benn foo xam ne point d'eau la boo xamante ndox bi foofu lay jàll bu inondé centre commercial da presque pratiquement da fat fatt bi mooy nan la nit di tabaxé centre commercial pour lay yembal waa Il faut jaayee place 6 millions 4 millions 2 millions caution. mais partenariat public ah, privé Faut que jëm beneen bi mooy Si boo jëndee place ba pare chaque mois ngay fay euh, loyer ñii 100000 ni 150 000, 200000 te ku xam yëmbal xam nous sommes une population je ne dis pas pauvre excusez-moi le terme mais nous sommes une population qui est... ne ay ay ay ay ay ay ay ay ay lañu. Mhm. nan la nit des nekkee di des di def ay di def loolu nga nekk na jënd place 6 millions wala 4 millions donc centre commercial tabaxuloon ko pour les wax yëmbal waa mais dañ koo tabax ñeneen ñuy jóge feneen pour ñëw mun a mun mën a mën a li économiquement liggéey liggéeyal seen bopp c' est mais loolu pendant ce temps là te pourtant pendant ce temps pardon ñu kii mais loolu du inconvénient ku am am na am na ay doomu yëmbal yu nga xam ne mën nañ koo jënd am na ay doomu yëmbal yu nga xam ne mënuñu koo jënd mais. su amee xam nga su amee ñeneen ñu nga xam ne dañuy jóge de l' ñëw jënd ñëw jënd foofu place di fa jaay ay doomu yëmbal ñëw di jënd muy dundal dekk bi lolou tamit jaar xam nga xam nga la wax amul amna? parce que espace do doomu yëmbal yep ko bokk lu ñep bokk la mhm. xam nga man je ne trouve pas inconvénient yow nga yor sa trois cent nga entrepreneur nga tabax sa centre commercial mhm. lolou amul problème ku am place jënd mhm. mais il faut nga xamni li lu ñep bokk la ça veut dire lu ñep bokk ñep ci wara a gis seen bopp waaw ah, mais ko centre commercial bi gaay dañ ci gis seen bopp par exemple man mi nga xamni man mi nga xamni ci benen wall bi la dekk jege naa yëmbal sud noonu pratiquement dëkk est-ce que yow am nga problème dama la ne mais su may ñëw chaque jour mun naa ñëw di jënd si centre commercial bi waa doomu yëmbal dinañ ñëw di jënd si centre commercial bi dinañ ñëw di non dama ne économiquement ñin tey par exemple économiquement bëgg nañu xam lan la ñuy apporter parce que tey bu lu may wax toujours nee naa la dañoo bàyyi marché xuur waaw côté am am marché mhm. marché bi ñu abandonné ko marché bi mu am inondation marché bi mu am ay problème yu bëri mhm. mairie bi pendant sept cinq ëllëg ñu xool problématique marché yëmbal yëmbal pôle économique yëmbal boobu non non non dañ ko fenee ñukk dem ut suñu espace privé privé boo xam ne parce que man côté boobu laa dëkk tey mënoon nañu servir de jardin parce que amuñu cadre de vie mënoon nañu servir de terrain de basket parce que tey ba euh, euh, terrain basket amul amul yëmbal mënoon nañu servir loo xamante tey ñëpp ci gis seen bopp mais dañ ko préféré jël ko jaay ko ay privé jox leen ko pour mun cee am koom bu gaaw

am na ñoo xam ne borom kër yoo xam foofu la ñuy daan seen doole. effectivement ndox bi daf ko nangu woon yenn place yi ñu ngi ñu ngi maire ñu ngi boo fekkee ci ruq yi da leen di yërëm. Mhm. ñu ngi nekk di di ci ruq léegi voilà léegi dañ leen war ñooñu ñu waroon njëkk xalaat. Mhm. pour xool lu ñu defaree seen cadre balaa ñoo wax leneen leneen. balaa ñoo indi ñeneen ñeneen ñëw leen jaay parce que xam nga mhm. parce que yëmbal yëmbal d' abord. yëmbal sud d' abord balaa ñoo wax ñeneen. effectivement ñu fi nekkoon am initiative créer benn marché marché boobu la ñu waroon développer beneen bi mooy nee na tabax na lycée. Mhm. man euh, dama lycée boo xam ne inauguré nañ ko ñaari yoon. Mhm. ça veut dire que da ko def CM CM mu tabaxaat ci kaw. mu nekk en mu nekk ñaar. waaw léegi beneen bi mooy lycée actuellement tra liggéey yooyu la. gars euh, def fu ñu ko def construction en hauteur ñu ko def. waaw balaa ñoo ne lycée xam nga CM ñu fay jàngee mooy ñu xaw a sixième ba ba troisième. Mhm. lycée ñan ñoo fay jàngee mooy. seconde ba terminal seconde ba terminal. est ce xam nga ni ñun côté boobu amuñ école primaire. ñun amuñu primaire école primaire amu fa. Hmm. xam nga fa la ñuy jàng jee gars yi dañuy jéggi dem yëmbal noor dem jàngi. xale yi. Hmm. mooy ci école primaire yëmbal noor yi la ñuy jàngee. Hmm. xam nga ñaati xale ñooy dee par at. des cinquantaine de xale yoo xamante ne tey bu ñu xoolee sept yi lu fa dee ci ay xale kenn xamul nu mu toll. déjà accident yooyu kenn xamul nu mu tollu risque la déjà. beneen bi mooy am na xale yoo dañuy jóge foofu dem jéggi Fass Fass Mbaw dem jàngi jee fa. effectivement. te ay xale yu ndaw lañu ñan lañu am CICP ñooñu nu ñu toll il faut seen parents souvent accompagner c'est souvent ñu demal seen bopp beneen bi mooy lu ñu mujj def mooy école privée yi ñoo fay ñoo fay ñoo fay nekk di di di développé wu parce que balaa ngaa dem jël risque boobu di fayal sa doom di bàyyi sa doom muy jéggi tali il faut que boobaa ñu def fayal ko ci école privée te ku xam ku am benn élève wala ñaari élève man mi yor école privée xam naa ku yor ñaari élève ñetti élève di ku nekk dix mille francs xam nga ne ak ak tey pouvoir d'achat ak yooyu yëpp tey inconvénient yëpp warta ko waroon xalaat pour man école bi baax na trop mhm. mais école élémentaire la waroon door ñi tabax ko en hauteur mu nekk benn CM mais mais tamit bu ñu xoolee boobu revendication habitant de Yeumbeul Sud yi la woon parce que tout simplement Sud dafa am ay am na école primaire mais amul collège amul lycée gars yi dañuy jóge Yeumbeul Sud di dem di jàngee Yeumbeul Nord fa la ñuy defee CM avec Momar Marème Diop ak Yeumbeul Yeumbeul 2 boobu noonu et cetera ak CM yi nga xam moo nekk au niveau du boobu noonu

mais dafa am zone benn côté la nekk dafa am zone boo xam ne dafa tudd les afia mhm. ñooñu ñuy wax les sancaani mhm. un deux trois ba six voilà ñooñu amuñu école primaire ba ba jidda ba jidda amuñu école primaire mhm. ça veut que tey moom maire bi mayoon nañu ko occasion parce que école primaire domaine domaine compétence mairie la bokk transféré la transféré la mais état du Sénégal tamit waaw waaw mais mayoon nañ nañ ko doo loolu moom tey inégalité boobu mu sauvé ko parce que moo xam ne c'est benn côté boo xam ne caaray kaw côté boobu am école Euh, Afia un Thiaroye kaw bi amul école. Mhm. Afia ci suuf wàcc yëpp amul école. Mhm. primaire ba jidd mhm. inégalité boobu da ko waroon a réparer. mu réparer mais pourtant bu muy ta commencé tabax école bi am na ñu def pétition ñu dëkk alentour boobu def nañ pétition nekkoon monsieur le maire ñun bëgguñu école secondaire dañoo dañoo bëgg école primaire mu ne leen man li ma neex laay def. soo di moom xoolul lu neex askan bi mais mun li ko neex lay def donc du ma du ma du ma attardé wu beneen bi mooy gis nañ ñun ñëpp tey entre yëmbal nord yëmbal sud. tey gis nañ développement bu yëmbal noonu am Pakasen mu ngi fa mm-hmm. tey Promoville mu ngi fa mm-hmm. tey gis nañ tey xar xar kanam yëmbal yëmbal noor nu mu mel donc bu ñu nee yëmbal sud am na bilan man ay reetaan la may def. parce que tey par rapport ak loolu noonu xala après ñu jéem a xool ñu dugg seen programme bi mooy boo xoolee xar kanam yëmbal sud pratiquement moo gën xar kanam yëmbal nord pratiquement zone boobu lay fréquenté fa laa dëkk pratiquement yooyu yëpp mais boo xoolee yëmbal sud ci zone bi ngay wax ak Promoville boobu noonu baara ceinture na ak ay tali. yooyu noonu peut être canal amna na yéen yu xam dafa don ta taawatul amna canalisation mais avec l'appui de l'état du Sénégal so demee yëmbal nord infrastructure pour tali problème la pour nga gis ay tali yu ba alors que yëmbal sud actuellement yéen so jëlee mbedd dam job bob non fofu zone impraticable la woon actuellement légui nit ñi dañ fay dox nu mu leen neexee oto yi day traversé dem Géejawaay bi ñuy jàngi l'imam lay yoon boobu noonu gars yi dañ koy dox xam nga mu am mhm. président fofu la défé campagne effectivement zone boobu caaray kaw jidd caaray jidd kaw président bu mu défé campagne dafa né fi bu may ñëw di éradiquer inondation effectivement président ko beneen bi mooy ñun tey au niveau de Yeumbeul Sud mhm. amuñu pratiquement benn infrastructure boo xamante ne digne de son nom tey amuñu cadre de vie benn parce que tey mais am ngeen ay place publique euh, ban place publique ñetti place publique bi mu defal monsieur Anta bi mu leen defal si côté mairie bi sëñ bi sëñ bi foofu boo moytul côté bi waaw ah. oto moo la fay fekk euh, boo fa dem sax déjà problème sécuritaire mooy am pour nga pour nga dem foofu est-ce que tu beneen bi mooy comme li ma koy wax il faut il faut ñu bàyyi naxaate bi mhm.

le président de l'association des maires du Sénégal Alioune Sall moo jàkkaarloog Sénégalais yi wax leen ne leen du compétence transférée état du Sénégal moo géré assainissement ñoom maire yi mënuñu ci dara seen budget mënu ko. Alioune Sall moo wax le frère du président de la République. xam le maire mun. curage de caniveau. effectivement balaa nawet di ñëw ñu jël caniveau yi raxas ko. raxas ko ba mu set. mais malheureusement mosuñu ko gis ñun au niveau de Yeumbeul Sud. Benen bi mooy li may wax toujours euh, tey ci assainissement. Mhm. état moo mun. Mhm. mais donc ça veut dire que moo tax loolu loolu la njëriñu tey ñu war a jël yëmbal sud delloo ko état du Sénégal pour que ñu mën a gën a mën a am cadre de vie ñu war a gën a mën a am cadre de vie loolu mooy wax ji mais est-ce du tëddee njaaxaanaay képp kuñ fi mun di fal muy opposition muy pouvoir mu jàpp carrément ni compétence transférée bi nga xam ne moom moo leen ko dénk xam lu tax état du tëddee xam am na am na projet yoo xam ne état da koy bëgg ñëw bëgg ko def defal population de yëmbal sud mm-hmm. mais maire suuf si maire maire ko moom. Mhm. mais bu mairie bañee am na loo xam état mënu ko. warul bañ nag non mais loolu moo am. Mhm. parce que maire dafa